yaaw yen yéen mbokk yi mbokk mbokk yi xarit yi waaw UNICEF yatu sama baay nee na képp koo xamee ne am nga soxla jàpp julli ñaari rakk jàng ko juróom-ñaari yoon juróom-ñaari bayti la sama baay nee na xaaja joo mën am incha allah boo boo boo paree mu sotti UNICEF yartu sama baay nee na képp koo xamee ne yaa ngi koy jàng doo ñàkk mukk ci àdduna waan dama koy miin di ko jàng إني سيرت بجاه مصطفى كرما وجاه أحمد شيخي خاتم العالمين وجاه والدنا شيخي خليفتي مع الوسائل تورنا من الحكم من الشرور ومن كيد العدو ومن شماتة من عدو جالب الغمم أو حاسد شامت أو ذي مكاشات رام احتضامي من عرب ومن عجمي ومن طوارق الليل فيه تزرقنا وفي نهار سوى الخيرات والإصم ومن سلاطين هذا الدهر أجمعين قنا إلهي شرور الكل بالكرم وأولنا الدهر من قطب الورى مددا بوابل من حي الإرفان منسجم ثم صلاة على المختار من مدر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 dafa soob yàlla mu ne dem leen ngeen seetal yi ma nit ñi suma jullit ñi lan la ñuy def ñee di wirdo ñeedi di kaamil ñee di nàngam ma ne waaye mën a wirdo baax na da mën a julli baax na da mën a naafila baax na da waaye sa xol nga bañ cee fanaanal kenn loolu moo gën loolu téeméer yoon na waaw xol maanaam damay wax ne jullit xol rek la moo ci gën a am solo bu doon examen ma ne mooy coefficient bi ëpp doole bi nga xamee ne boo ci amee note bu baax coefficient ba moo lay jàllale ci gën a leen ma wax leen ne yonent bi alayhi salaatu eh, di julli yaakaar naa noonu la ñu ne asalaamaaleykum rek daal di daal di daal di ni xam nga ilimaan bu ne asalaamaaleykum du ngeen koy seetlu dootu jubli fa mu jullu bu bëgguñ mu ne asalaamaaleykum jublu penku day jublu ndeyjoor wala mu jublu càmmooñ wala mu jubloo nit ñi xam ngeen pour pourquoi dañoo bëgg ilimaan bu nit ñëwee di dabe julli gi xam ne julli gi jeex na loolu mooy bit bi ndax ilimaan su fekkee ne nee na salaamaaleykum daal di nekk ci kursam taf taf taf taf taf taf taf nekk toog position bi mu woon keneen bu ñëwee li ko war ci sharia day daan allahu akbar ak daal di toog fekk ilimaan moom pare na moo tax ilimaan bu pare loolu nag dama koy jàngale tuuti rek waaye bokku ci ilimaan bu pare dafa dañ ko ñaan mu julli jublu ndeyjoor wala mu jublu càmmooñ wala mu jublook mbooloo mi lañ ci jublu mooy keneen koo xam ne day ñëw di dabaatal julli gi xam ne julli gi neex na julli waaye moo tax tenazzalu waaw très bien yonent sallallahu alayhi wa sallam wëlbatiku daal ne ndax mas ngeen a gis nitu aljanna koo xam ne dee moo ko teree dem aljanna qiila laa yaa rasulallah loolu day masuñ koo gis mu joxoñ benn waay daal ne kii dee nitu aljanna kuy dund la dee moo ko teree dem aljanna saa yu jullee fajar rek loolu lay wax gis nga nit ñi loo wax ñu toppandoo ñu ñu ñu vérifié ko benn waaye dab ko ne ko diw mu ne ah. mu ne ko waaw yow yan turu yàlla ngay sikar mu ne ko dara mu ne ko déedéet lan ngay naafila guddi mu ne ko dara laa du naafila mu ne ko mënta nekk yonentu saa yu jullee mu ne dee moo la dem safara bi am na looy def di ah, ah, ah, astafurlah dee moo la teree dem aljanna am na looy def te ñun defuñ ko looloo tax yonent bi di wax loolu ci yow rek te waxu ko ci ñun mu ne ko ah man day dara léegi jeex na yonent bi jóg na ma ngay ñibbi léegi nag après euh, ñu ne yonent bi sallallahu alayhi ñu ne ko waa lu tax nga ne dee moo ko teree dem aljanna tam déedéet benn waay moo ñëw ne def koy agent secret wu maanaam da koy lu ñetu ñëw ne ko gan laa mu ne waaw ñuy waxtaan mu ne ko fooy tëdd mu ne ko dama lay utal néeg mu ne ko déedéet waxal sa jabar moom mu tëraani maa yu ñu tëdd man de comme ko waxoon ma génne la jabar ji tëraani ci yaayam moom mu ñëw ñoom ñaar ñu tëdd waa ji julli gee julli safa sa safa baatu arab la mooy mooy ñaar witre mooy lu tóol pair ak impair damay jàngale yàlla julli safa benn sëlmal julli witar benn sëlmal asalaamaaleykum daldi sàngoo mbàjjam di xaram gërr moom dëkk bi ki ki ki dëkk gan gi moom naan ala asalaamaaleykum allahu akbar asalaamaaleykum allahu akbar asalaam ba fajar di des quatre minutes mu fëgg ko waaj dem ca wanam wa waaj dem ah yëf yaa ngi mu ne diw mu ne ko ah, mu ne tey de yónnatu man lay wax dara gane si wu ma loon dama doon seet si ndax nangam waaye ndeke yow saa yoo nekkee tëdd nelaw dong nga fiy tey de maay doon candidat waa ji tontuwut ñu dem fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi julli ñu ngi ñu ngi julli boo ne boo ne allahu rek fan ko fekk buy rukkoo am nga ràkka bu sujjootee da ngay naan allahu akbar sujjoot waaye amoo bu ne asalaamaaleykum am ñaar ràkka yow nga jóg fekkee ne ca kaw nga ko waroon a wax nga wax ko ca kaw boo ko daan war a wax ci nga wax ko ci suuf léegi nag ñu pare rek yonent yonent def ay lawraatam ba pare rek waa ji geesu naan tey may candidat yonent ne ma ñu ne ah mu ne ndax mas ngeen a gis nitu aljanna koo xam ne dee ko tere dem aljanna ñu ne déedéet waa jël doxam gi ne ko hum ko maa ngi tudd man la mana naan nii gi ñu ne déedéet moo waxaat ndax mas ngeen gis koo xam ne dee moo ko teree dem aljanna xii la laa yaa rasulallah déedéet waa ji jël doxam gi ba bëgg koo mbëkk ba bëgg ko mag naan ko mana maay candidat bi tudduma yonent bi joxoñ la même personne bi mu doon joxe bàyyi ki fanaan a julli mu ne yonent bi dee moo ko teree dem aljanna mu ne ko déet néegam laa dama ko doon agent secret waaye dafa fanaana nelaw ba ñaari rakkay fajar yi sax julliwu ko su fekkee ne ñaari rakkay fajar yi julliwoo ko sharia nee na boo de ba ba julli ba pare ba doo tëbatëb fay ko da ngay bàyyi ba neuf heures jot xam nga jant bi dox gopp ak yooyu yëpp mag ñi xamutoon moo montoon loolu rek la waaye neuf heures rek boo neuf rek nga fekk jant bi so taxaw na nga fay ñaar rakkay fajar yi xam nga loolu la war a def mu ne yonent bi nag man daanaka man nga war a man nag mu ne waa ji dafa fanaane nelaw ba bër set yonent bi muuñ daawul daawul ree du xaqtaay ku amoon dignité la ne ko waaye nelawam yooyu yëpp mi ngi bokk ci ñi yàlla naan radiyallahu anhu wa radu anhu dalika liman xashiya rabba sadaqa allahu alazim nelawam yëpp mi ngi bokk ci ñi yàlla naan ñoom day gërëm naa leen ñoom day am nañ suma satisfaction ñoom day am nañ suma ngërmaane ñoom day am nañ suma nangam nangam xam nag nelaw yooyu yëpp mi ngi yóbbaale suma ngërmaane mu ne ko man nag yonent na ko waaw nañ ah buñ demoon ba ca kër ga day moo gën xam nga baado la moom baado la rek nit ñi ne waaye wax ko fii waaye mu ne waaye wax ma ko fii te yonent ko bëri woon gerte na ko tee ngaa bàyyi bañ dem kër ga wax ma ko fii mu nga ah yaa waaye wax ñaan waay waay ko waay wax ko waay wax ko waay ndax ñu dégg ko yonte ne waay ji li ko may loolu mooy bu doxee ba jant bi sax mu fëgg ñaari tànkam yéeg cib lalam ba bër set mu wàcceeb lalam du fanaanoo kenn ci xolam allahu gis benn waaye otoom rek mu ñëw rek mënatoo nelaw waaw am na feebaru xol yu bari yu ñuy wax naqar yu ñu bari mooy mooy iñaan rek la waaw iñaan moo nekk ci feebar boobu mooy feebaru xol yu bëree bëree bëri bëri cardiologie yi mënuñ koo trouvé ndax fii qulubihim maradun la alquran wax fa zaadahum allahu marada yàlla yàlla ne kiñaan feebar la loolu moo tax feebaru cœur boo xamee ne kenn du ci man dara bu demee ba arrêt de cœur ba waa ji am ñun bi ñuy def examen ma def examen ñëw benn naar daw daw dem yaa Muhammad ma ne ko yëg naa ko rek mu daanu xam <laughs> waaw waaw bu doon tey di ma ko def at mi ngeen la bëggoon a wax rek yaa Muhammad ma ne ah ba naa ko ba ma ne yëg naa ko rek mu ne tal xam di di di di di di di wàccu <laughs> wax ne di naar wax maanaam yonent bi ne ko ah kii day loolu moo ko teree moo ko may li ko yàlla may xorom bi nu ci kenn dara du iñaanee kenn ku ko ëppale moo tax alquran wala tatamanna mu xañ ko mu xañ la ko yow jox ko keneen ki coefficient loola coefficient ba yàlla dong moo koy xam maanaam ki yàlla def muy président de la ki yàlla def muy muy muy directeur national wala muy chef wala muy nangama nangam nangam muy ilimaan wala muy leen yàlla dong kott rek dong only moo xam la ko may loola pourquoi defu la ko yow dafa am yoo xam ne kenn kenn du ko xam loolu moo loolu moo tax waa nag na ko man nag mu ne ko yow nag yaay safaanab waa ji yow boo sañoon Kawlax kenn kot dong moo fi am moo fi am ndogu moom la jabaram di togg ndogu boo sañoon Kawlax dong yow rek yaa fi am kër gu baax yow boo sañoon nangam ak nangam individualisme boobu nag moo lay nekk handicap moo tax boo jullee yàlla du nangu allahu akbar boo wooree yàlla du nangu loola ma waxoon kooku nag walaa bal na ci tey kon nit ki lum am lum rafet lum bëri bëri bëri bëri bëri waaye nañ bañ di tuumaal ah, benn waaye nekkoon fi nekk ndakaaru di ambulant toog ba ci yàgg doxut mu jógee fi dem Banjul wala dem Espagne wala dem fenn dal di dal am ñëw di tabax këram ñu ne ah saa waay day moom day moom mi ngi tabax nga ne xay jaay dorog rek la fi nekkee allahu akbar waaw ma maanaam buñ ne waay ji oto bu rafet bi nga ne tappale rek jaay dorog buñ ne jigéen ji day sol na cuub bu rafet yi xew nga teg lu bon nangam rek loolu koy ku ko def am ko maanaam il faut yow nga taxaw place yàlla bëgg a wax ne li ko ko may lan la loolu nag li gën a yàq suñu réew mi li gën a yàq suñu société bi ci la bokk duggatee hmm? ci oto da ngay fexe yéen ñiy tukki amoo amu leen oto wala ko am oto bopp da ngay fexe ba duggaaleen jàpp bala ngaa dem nga jàpp boo demee jàpp ba pare ba ba mu départ ba mat trois kilomètres nga xam ne dëkk boobu génn nga ko nga jàng inaan naaw boo ñëw ba ci salaamun benn yoon nga taxaw ne salaamun salaamun salaamun kàbbar ñetti kàbbar xii xattaa mat lay fajir bàyyi ños nee na ma képp ku def loola nee na da nga ci jàmm boo wàccee nangam da nga koy beesalaat inaan naaw ci secret yu ma dul wax jigéen joo xam ne dafa bëgg a wasin wasinu jafe ñu ne dañ koy césarienne boo bindee inaanzal naaw ñaata yoon xam maa bañ dama ko wax boo ko boolee euh, kiiwu ganaar ganaar fi ganaar gi kamba ganaar suuf soo suuf soo sa ganaar gay neen def ko ca boo ko ci dibee mu sedd guy inaanzal naaw boo amee sab terrain mu jaaxal noo koy tabaxee am na yu bëri yoo xam ne boo ko defee inaan sa naaw ke ma ko jox nee na balaa ñetti fan ñetti weer ñetti at mu tabaxu ci sa dërëm du ci dem du bëree bëree bëree njëriñ la bi ma am droit wax leen ko gratuitement mooy boobu kon kon be